sëñ bi ne jataay bi dafa yàgg waaye nee na jaral nañu ko ndax président makki mi toog fonk gu mu nu fonk fonk Sénégal gépp fonk kilifa diine yi moo waral lii ne moo waral lii ginnaaw bi ñu santee yàlla sëñ bi ne gannaaw bi ñu sante yàlla. julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam. julli ci yonante bi sallallahu alayhi ñu ngi koy nuyu. président sëñ bi ne mu ngi lay nuyu. nuyoo ba gën ci lislaam. nuyoo ba gën a kawe ci lislaam. ñu ngi koy sant. sëñ bi ne mu ngi lay sant. ñu ngi koy ñaanal yàlla it. di la ñaanal yàlla. ndax ku jëf lu baax. ne ndax ku jëf lu baax. yàlla fay la. yàlla fay la. rawatina nag réew mu mel ni Sénégal. rawatina na réew mu mel ni Sénégal. yàlla fab ko teg ko ci loxoom. yàlla fab ko teg ko ci say loxo. mu méngoo gi mu mu méngoo ak réew mi. nga méngoo it ak réew mi. ci jëf yu rafet. ci jëf yu rafet. jëf yu baax. jëf yu baax. teral kilifay diine yi. nga teral kilifay diine yi. fonk këri diine yi. fonk yi këri diine yi. li mu bëgg yàlla na ko defal. ne incha allahu taala li nga bëgg yàlla na yàlla na dina la ko defal. mu ngi dimbale réew mi. ne ni yaa réew mi. jéego yi mu seq yi. ne jéego yi nga seq yi nga seq yi. am nañ moom yaakaar bu baax. ne am nañ ci yow yaakaar ak jéego yooyu bu baax a yaakaar jooju yàlla na ko yàlla mottali. ne yaakaar jooju yàlla na ko yàlla mottali. président baax na lool. président xalifa bi ne baax nga lool. déggoo naa ak réew mi it. déggoo nga it ak réew mi. ndax réew mi. ndax réew mi. Eh, jikko ju rafet koy yor. jikko yu rafet moo koy yor. ak fonk diine ji. ak fonk it diine ji. fonk kilifa yi. fonk it kilifa yi. ndax kilifa yàlla ko yàlla ko yàllaa ko jëkk a fonkal boppam. ndax kilifa yàlla moo ko jëkk fonkal boppam. ba def ko kilifa. ba def ko kilifa. kontaan nañ ci moom lool. président sëñ bi ne kontaan na ci yow lool. ñëw gii mu ñëw fii rëy na ci ñun lool. ne ñëw gii nga ñëw fii ci njaasaan rëy na ci ñun lool. ndax famille bi yëpp a ngi fi. ne famille bi yëpp a ngi fi. ndànk a ngi fi. ndànk a fi. ndeer a ngi fi. ndeer a ngi fi. guyet a ngi fi. guyet a fi. sanc buuna a ngi fi. sanc buuna it mu ngi fi. ak ni ñu tasaaroo ci biir Sénégal. ak ñuy tasaaroo ci biir Sénégal. loolu yëpp fonk fonk fonk teeru bi. ne loolu fonk bés bi ak sa ñëw gi. ak jëmm jëmm jëmm président la république. ak sa jëmm yow monsieur le président de la république. moom rek moo waral loolu. loolu dong moo waral loolu. mi ngi ànd ak yi ministère yëpp daanaka. ne it gis na ni yaa ngi ànd ak mboole seen ministère yi. mu ngi leen di nuyu. ne ñu ngi leen di nuyu. ci premier ministre. dale ci premier ministre. ministère de l' intérieur. ministère de l' ba ci suuf ba ci suuf. di leen ñaanal it. di leen ñaanal it. ndax euh, bis bi. ne ndax bis bi. dafa tombé mu nekk ci diggante ñaari gàmmu yi. dafa tombé mu nekk ci diggante ñaari gàmmu yi. muy bis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. muy bisu yonent Tiwaawan def ko keroog. Tiwaawan def ko keroog. ñu war koo def ñu itam bis bi dellusee. ñu war koo def ñu nit bu bis bi dellusee muy ngénte li ca bisu yonent bi. ca bisu yonent bi. ñun fonk nañ ko lool. ne ñun fonk nañu ko lool. ndax yonent bi mooy suñu maam. ndax yonent bi sallallahu alayhi wa mooy suñu maam. kon nag bu bisam ñëwee. kon bu bisam ñëwee. ñu war koo fonk. ñu war koo fonk. war koo teral. war koo teral. rawatina nag ñu am ci gan gu toll ni président Macky Sall. rawatina am ci gan gu toll ni président Macky Sall. te gan. te gan. teral ko sunna la. teral ko sunna la. nabilaay Ibrahima alayhi salaatu wasalaam. yonent yàlla Ibrahima alayhi salaam. moo jëkk teral gan. moo jëkk a teral gan. ay tubaab dañoo ñëw ci moom ganasi ko. ne ay tubaab dañoo ñëw ci moom ganasi ko. mu dàq leen. mu dàq leen. yàlla yebal Jibril alayhi salaatu wasalaam. yàlla yebal Jibril alayhi salaam. ni ko lu tax nga dàq leen. ni ko lu tax nga dàq tubaab yooyu. mu ni yéefar lañu. mu ni ay yéefar ni ko du ñu sa yéefar. mu ni ko du ñu sa yéefar. na nga leen dab. nanga leen dab. teral leen. teral leen. mu dab leen. mu dab leen. tubaab yi siisu. tubaab yi siisu. mu ni leen sama borom moo jox moo ma jox ndigal. mu ni leen sama borom moo ma jox ndigal. pour ma ñëw jël si leen. pour ma ñëw jël si leen. laa ni Jibril nag laajal suñu borom nu ñuy teral gan. Jibril nii laaj suñu borom nu ñuy terale gan. mu ni ko da ngay da ngay am bachage da ngay ubbi sa kanam. mu ni ko boo buggee teral gan da ngay ubbi sa kanam. nga nuyu leen nuyu bu rafet. nuyu leen nuyu bu rafet. seet fa gën a tedd ci sa kër. seet fa gën a tedd ci sa kër. nga dalal leen. nga dalal leen. toggal leen ñam yu tedd. toggal leen ñam yu tedd. bu ñu dee laaj. bu ñu dee laaj. bu ñu dee dem. bu ñu dee dem. nga jox leen. nga jox leen. gunge leen. gunge leen. moo tax teral gan. moo tax teral gan. di sunna su dëgër. di sunna su dëgër. nee nañu gan fu mu wàcc. nee nañu gan fu mu wàcc. suñu borom day yebal malaayka moo xam ne gan la ko tudd dayif. nee suñu borom day yebal malaayka moo xam ne turam mooy dayif gan. wàcce fa xéewal. wàcce fa xéewal. wàcce fa yërmande. wàcce fa yërmande. wa wàcce wàcce fa teraanga. wàcce fa it teraanga. ba wàcce fa ak njëggal. ba wàcce fa it ak njëggal. bon nag comme que loolu sunna la. comme loolu sunna la. ñu ñu am gan gu toll ni président Macky Sall bi. lu mu ko defalul rek. lu mu ko defalul. bon nag ngan ngeenu bett. ngan ngeenu bett. wante sunu yéene passé na. waaye sunu yéene na ko. Eh, jotaay bi nag yàgg na. nii jotaay bi nag yàgg na. jox nañu ko fi ay gàtt. nii jox nañu fi ay gàtt. mu boole na góor ñu indi la ko <laughs> muy koy dénk. mais Dieynaba Fall nekkoon Sam eh, maire Sam Notaire. ti sa ambassadeur itinérant. sànq la fi ñëw. mais suba teel la fi ñëw. indil ma ay teraanga yu. indil ko ay teraanga yu bëri. Euh, ñu ngi la koy dénk. ñu ngi la koy dénk. bu baax a baax bu baax a baax. ñu ngi lay dénk suñu préfet bi ak suñu gouverneur bi. suñu préfet bu baax bi ak suñu gouverneur bu baax bi. président comité rural bi. président comité bi ak monsieur le maire. bu baax a baax jàpp nañu bu baax a baax. ñu ngi nuy teral. Ah. Mhm. nee Sira Dia. Hmm? ak Siré Dia waaw Siré Dia ñëpp ay njabootam lañu. Mm. ku baax la. ne ku baax la. fonk nañu. fonk nañu it mu ngi ñuy teral. mu ngi ñuy teral mu ngi mu ngi ñuy dimbale it. te bi def ne wallaahi abdi ma daamal abdi fi ku dimbale jullit yàlla dimbale. ne yonent bi Aliou Sane dafa wax ni boo bëggee yàlla di la dimbale dañ dimbale jullit yi. Thiès gii la nekk. Thiès gii la nekk yilif poste yëpp. yilif euh, nga bàyyi ko xel. ne mu ngi lay ñaan président nga bàyyi ko xel ndax kuy dimbale la du ko sax feeñal ñëw na fi sànq nuyu ko jërëjëf jërëjëf macha allah mais kon président njaboot gi yëpp daal mu ngi la koy dégg yokk ko it jërëjëf nee na Cheikh naan di Mouhamed Rafa yi mu nga gànnaar ci ambassade bu Sénégal ba di suñu doom ne léegi mu dem war a noppalu ji. retraite yokkal ah, mu ngi lay ñaan yow yokkal ko. jërëjëf incha allah ah yàlla nañ ko bindoo yooyu yëpp soobee yàlla sëñ bi président ko defal waaye ci audience lay doon waa bi ñu koy bind yónnee ko dafa xër ci njaboot gi rek xër dong ñoo tax sëñ bi yal na la yàlla yàggal fii yàlla yokk wér gi yokk maqaam bu ko defee nga ñaan président daa bëgg a dem visiter chantier yi nga defal ñu ñaan waaw liggéey bi la bëgg a dem xooli ko uh-huh. nee na xalif général de Ndiassane nee na Ndiassane dëkk la xalif général des Khadres al xalifatul aam li tariqati al qadiriya al bekaiya al muxtaariya ne Qadiriya ne moom moo ne ci bopp bi fii mooy capitalu Qadiriya kunte yi jóge nañu gànnaar ñëw gane si ko fii daaw muy ahlu cheikh yépp di fukk ñeent yoo xam ne ñoo nànk bunti kër kunte ya nekk ca gànnaar ne defal ko lijaasa boo xam ne ñoom ñëpp d'accord nañu mooy xalif général des cadres mu ngi fii waaw 1802 la fi suñu maam Cheikh Bounama ñëw sanc ndànk indi fi tariqal qaadiriya bi mu traversé fleuve Sénégal jaar Fuuta ànd ak Malal tak ko jabaay moo indi gawlu yi tey fii mu ñëw fii sanc fi Njaasaan def fi zawiyal qaadiriya ca Njaasaan ca ndànk histoire bind na ko ne ku ñëw na bëgg a indi leneen te li ñu fi am yàlla xam na ne yàlla nu ko jox kon nag bu ñu ko bu ko xeex kon loolu alhamdulilahi rabbil alamin am na nu njaasaan ndànk guyet ndeer ak sanc buuna ak dëkk yee ca saalum yëpp bari nañ fi lool jërëjëf gànnaar gi boo demee kunte yi ñoo moom genn wàll gi ndaje mañ fa daje woon junniy boroom yi xam-xam ak ñaari téeméer dañoo génn yi ku ci nekk def sa waxtaan nee na day néew na nga dem geneen kër ah fekk fa mel noonu nga dem ba ci azawaat ca Mali ah, ah, ah, azawaat sa yaa nga fa tëdd <laughs> waaw jërëjëf waaw tumakut moo bismillah kon ñu tàllal bismillah ñu leen loxo yi leen ci soxla amin amin amin آمين آمين آمين آمين آمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط آمين آمين أنعمت عليهم آمين خير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله آمين في ستة أيام آمين يا الله وسمسم الخمر والنجوم آمين يا الله بأمره ينال والأمر تبارك الله رب العالمين آمين يجب أن إلى ما كتب الله لنا ومن آمين آمين آمين يا الله له إلا أول من كل حزم فلا أراد لفضل يصيب به من يسعى من عباده وهو آمين آمين آمين لله الناس من سر الوسواس آمين آمين يوسوس في صدور الناس من الجنة آمين آمين آمين آمين